voilà léegi bi nga demee. diggante bi nga demee ak bi nga yegsee. waaw am na xibaar bu rëy boo xamante ne xew na ci wàllu làmb. muy la mu dox ci diggante doomu géejawaay. waaw bëgg nañu combat. waaw muy kan muy muy Lac de ak Ama Baldé. waaw àdduna bépp di ci waxtaan. waaw ma jëli keroog Abdou Bakhoum. yooyu waaw. bi yaa ko woon. waaw laa ko gisee. waaw yow yaa jël Abdou Bakhoum. waaw ndax tey jii man su ma sañoon combat boobu du am Ama Baldé Lac de Guiers du am. lu tax waaw non man maa ko bëggul lan moo tax la noonu Ama suma rakk la sama doom la sama xarit la. Ama ñëw na ma kër ñëwatu fa lu ma xew la mu ñëw. comprendre la et puis la dëgër suma rakk la ñu bokk benn écurie may mënu maa géej di seen mag ñoom ñëpp su ma sañoon combat bi am ndax la dëgër nee na Ama am na lu leen boole war ñoo bëre ñoom ñaar bëggul ñu bëre waaye Ama su taxee topp dinaa day bëre bi la dëgër ak ci bisimilah su ko promoteur tëggee noonu la u Abdou Bakhoum yi ay saytaane lan lu ñuy dugal seen poche la ñuy lu mu dugal seen pop moom intérêt boppam lay xool moo tax mu taxaw di génn di coolal Lac de Guiers naan ko ay benn loxo laak yooyu yëpp yooy yaa ma woon vidéo bi Abdou Bakhoum su waxee lii day wax lu ko neex su waxee lii day wax lu ko neex waaw ndax moom intérêt boppam lay xool intérêt boppam lay xool Jules ni moo gën a bokk ak Ama te seetlu ne moom sa neer combat bi du am bugg ko ne combat bi du am Ah, Abdou Bakhoum dafa waroon xool loolu waaye comme que mooy ménagère am intérêt boppam lay xool ak lu mu dugal ci poosam lay xool non non amul sport moo leen boole am na lu ndax seen diggante lalla Jules Baldé taxaw na nee na combat duñ ay a waaw d' accord ama su ma wax loolu ndax xale la te daa am euh, toog na quatre ans bëriwul ah ah xañ loolu moo tax mu bëgg a bëre xañ na moo tax mu wax loolu xam ne xale la ah loolu moo tax mu bëgg waaye Abdou Bakhoum waru ko pousser ci loolu ndax lan intérêt boppam Abdou baaxum intérêt boppam lay xool ak lu mu dugal biir poosam loolu baaxul loolu taskar la pour taskar la baaxul. baaxul Jules Balde Jules Balde tey ñu ne ko Amadou Amal nee na Balla Gaye la fi bàyyi. xoolal xoolal dimbali ma xoolal dama lay expliqué dama lay wax. d'accord yow sax bu ñu ko joxee sa avance. d'accord d'accord su nekk mën ak mën la bëriwul su nekk mën ak mën la kon bëriwul. su nekk mën ak mën la bëriwul waaye dama lay xamal benn affaire. man Ama suma rakk la. waaw man dama ko yéene naa ko. Hmm. ni ma yéenee Lac de Guiers yéene Balla Gaye yéene ko noonu laa ko yéene Ama Balde. wax nañu bëri ak Modou Lo nëbbu ma ko yàqu ma fii laa taxaw Modou Lo taxaw na yëkkati xaalisam ma ne ko teewul man ama laa fan soo see ama daan la loolu laay ñaan. Hmm. parce que xam nga li ma la hmm. rafetal di xool lu yëpp di am lu ñuy bëgg ndax suñu digganteeg moom ni mu rafetee tey jii ah, Abdou Bakhoum taxaw naan dañuy bëre ah di taxaw ci ginnaaw tey su ama waxoon loolu moom waroon na xool li Gilles Balde di xool mu wax ci loolu comprendre nga xoo xool li Jules Balde wax mu defar loolu. Jules Balde Jules Balde génnul def benn sorte. moo wane ni ànd na ci loolu. waaw waaw non Jules. sa sañoon Jules su sañoon du bëri Ama Balde de Guiers. ah mais euh, non Jules su sañoon du bëri ak waaye addu baaxum intérêt boppam lay xool ak lu mu dugal ci biir pooso su toogee quatre ans li mu toog ama toog bëriwul quatre ans yi amul lu mu dugal ci pooso loolu moo tax muy poussé ama pour la dëgër am la dëgër amul xorom kan fay non day wax lu ko neex addu baaxum su waxee day wax lu ko neex su waxee loolu day wax lu ko neex tey jii bëgg na ama ama bëri la dëgër moo tax muy génn di jéem a cóolal la dëgër ñun dofuñu ama ak la dëgër ko ëpp xorom kan yow non ay yooyu yëpp ay ama ak la dëgër ko ëpp xorom yëpp jara man ñoom ñëpp sumay rakk lan comprendre nga. la de guerre suma rek la maa ko yar. Ah. ama suma fils la. sama boy la di nga am problème non mu moo tax ñaanu ma yàlla combat bi taxaw. Ah, day taxaw non waa d'accord ba non non. la de guerre dëgg c'est mu bëgg. ama ama su génnee taxaw di laaj tey jii moom mi nga xamee tey moo seet si miir bi seet nañ ko ci miir day fay fay dafa ragal ama te fekk ragalul ama. fekk ragalul ama. genre Abdou Bakhoum seen wax yi la de guerre su jël combat bi sax day fépp jël combat bi day simple jël combat bi ndax su taxay naan la de guerre ah sama xol am di wax wax yoo xam ne wax yu amul sens loolu baaxul. loolu day tas kër. baaxul baaxul neexuma Abdou Bakhoum loolu mu def du dëgg du yoon waaw du dëgg du yoon. waaw man du ko réagir noonu. war ta taxaw di coolal la de guerre wax di wax li wax la loolu baaxul j'arrête. loolu baaxul. yow boo jàkkaarloo Abdou Bakhoum du ko wax lii waaw yow lan mooy soo jàkkaarloo Abdou Bakhoum du ko mel ne Abdou Bakhoum mooy kan. Abdou Bakhoum mooy kan ba su ma jàkkaarloo lu ma xam ne mooy ragal ah. la yow xoolal dimbali waa man maay ragal man man maay ragal man Ama suma fils la man nëbbu ma ko làqu ma ko. mais déggante ak yow ak Ama. kan non non non xam nga la man man su ma sañoon combat bi du am waaye xam nga moom bëgg na bëre bëgg na bëre xale la bëgg na bëre. Hmm. Lac de Guiers tamit bëgg na bëre xale la. Lac de Guiers moo am lu mu doon seet pour bañ a bëre ak Ama jàpp ne Ama rakkam la comprendre nga xëy na am na lu ñu bokk amaana su taxee ne bokkul ak moom dara la de guerre tamit vraiment du ragal day génne wala boppam day de su promoteur man promoteur woo na ma Ibrahima. Hmm. Ibrahima mi tëgg combat dimanche bi. Kajoor Maama Lamine Kajoor production Ibrahima. Ah, ah. woo ma pour bëgg combat bi. waaw ah. dama combat bi day day taxaw da koy taxaw ma ne ko bisimilah. waxtaan ak la de hmm. Ibrahima woo na ma ma ne ko waxtaan ak la de combat bi bu ñëwee noo ciy def. ah nu ma ciy def man nu ma ciy def man géej da ngay def faral la de guerre. su topp ci ginnaaw la rek mooy monument Guédiawaye sa rakk ngay dem mooy la monument Guédiawaye ma dëkk Guédiawaye ah su ma ànd ak la dëgër ku may àndal kon ama da ngay jaar dëgër non non sama rakk la sama doom la man tey bëggu woon combat bi am moom nag su sabab loo combat bi bu bëgg combat bi acca bismillah na neex ah, ah way na neex kon bu jëlee ama ah. na la fi ne su jëlee avance déclaré na ma guerre. waaw Ama su jëlee avance a na ma guerre. sama doom la sama rakk la. jàmm laa bëgg moom. tey waaye su jëlee bi. Ama déclaré na ma guerre. <laughs> ah oui ndaxte su ma sañoon combat bi man bëgguma combat bi. combat Ama taxaw. waaw ak ak Lac de Guiers. waaw liiru ay bouteille. si non. war a sotti Lac de Guiers. man su ma sañoon non comment xamoon na askan wi dañ ko bëgg waaw d'accord non non c'est normal tamit ndax lat instant yi ay adversaire am ta war naa bëre mi ngi entraîné war naa bëre ama mi ngi entraîné xale la war naa bëre ndax ay adversaire am hmm. léegi nag su moom su dee ba gis ne war na bëre ak Lac de Guiers ah, na neex nañ ci wax wax bu rafet addu baaxum na wax wax bu rafet waaye bu mu génn coolal Lac de Guiers naan ko ay benn loxo la su waxee loolu day wax lu ko neex su addu baaxum su waxee loolu day wax lu ko neex day wax lu ko neex Lac de ñaar defet la fi am Lac de Guiers kan moo fi daan nan waxante dëgg. Lac de waaw nan waxante dëgg. benn defet muy Eumeu Sène. benn defet la fi am. waaw Lac de Guiers benn defet la fi am. waaw dañuy rafetal xanaa leen ni Maxime la ñuy wax kon nag. non benn defet fan. déglu Lac de Guiers bëreewul ak Modou Lo Modou Lo daan. non non sans verdict comme sama victoire victoire ba ñaata yoon laale. moo ko Modou yoon. waaw waaw ah. bu bi moom lañ. jaajëf dañoo Maxime benn bi lañ joxoon Modou Lo victoire waaw ah, kon Modou Lo daan na non Modou Lo daan na déglu ma victoire noo ko amee baax non bu lox non non non daanu ko non bu lim bu toogul ci kawam du wëlbil gang waaw wëlbil gang non non non du wëlbil gang boo demoon ci CNG du wëlbil gang oh, booy du wëlbil gang du wëlbil gang su ma la waxee loolu xam naa ko du wëlbil gang daanoo daanoo wëlbi ah c'est pas vrai waxul dëgg kon la da guerre la victoire yooyu ñoo yem kon la moo tax Modou Lo nga ne daal victoire ñoo yem sama victoire boo amee Gambie la waaw ndam la noo ko na rek victoire noo ko amee baax na waaw victoire noo ko amee baax na kon la da guerre am na ñaari défaite kanti la da guerre gisuma ko yaa ko gis kon Ama Sène daanu ko non Ama Sène d'accord daan na ko benn jël te jël boobu dañ ko doon taafantal sax naan leer na am leerul daal voilà leer na am leerul